yow baa doola nga. mosuma la man mosuma laa nopp. ay waay moo tax mu topp la. <laughs> waay waaw yàlla defal bu loolu gis ji mujj na Choumi TV mi ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam j'espère que ni bi fekk na ñëpp ci am mais kon ne encore une fois di leen rappeler ñi nga xamante ni ñu door a abonné Choumi mi leen wax rek ne leen welcome back to the channel yéen ama gën a xam mun naa ni comme rek ñu koy faral defee waaw Choumi nag tey sama gars yi sincèrement dama ñëw pour waxtaanee ci benn sujet boo xamante ne c'est vraiment récent ñu ci bëri si ñun les sénégalais buñ ko dundul aussi mës nañu xam koo xamante ne mës na ko dund muy maanaam problème mu infidélité problème mu infidélité yi nga xamante ne mi ngi xew suñu biir ñu en tant que des sénégalais ñu gis ni nag sama gars yi dafay benn situation boo xamante ne mi ngi bëgg lëmbe Sénégal waaw yéen saa nga gis benn benn vie de couple boo xamante ne noom seen ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk mi ngi téye benn secret boo xamante ne mësu ko bëgg révélé waaw Choumi TV nag ñoo tey sama gars yi pour tànn sujet boobu noonu pour résumer ko. mais sincèrement ci biir waxtaan bi nag dama leen indi ñaari vidéo yoo xamante ne ay vidéo yoo am am solo la moo ñëw tey pour ñu décortiquer ko ñu seeraanandoo ko waaw ay vidéo yu étaanu la nag waaw suñ ko seraanee ba pare man sumi ma wax leen laa ci xalaat yéen ñi nga xamante ne aussi yéenay seeraan vidéo bi sama gars yi ngeen bindoo ma seen commentaire suuf. soxna si mës nga mës nga mus nga mooy alaaji ci infidélité. mooy. waaye laaxi la la yàlla na ma yàlla musal si loolu. Ah. si baat bi rek yàlla na ma si yàlla musal. a ah, ah, yàlla na ma si yàlla ma wax dëgg fa neex yàlla. musta am te ñaanu ma ko yàlla tànk maa ngi ànd ak sama sago daal ah ñaanu ma ko yàlla waaw waaw. ah alaaji yow ñu laaj la est-ce que même question mos nga soxna si. ah déedéet déedéet. ah mais xoolal xoolal mais dañ naan na góor ñi souvent ñoom xam rek. il faut ñu lijjanti pour am ay ñaareel léegi dama lay laaj sa digganteeg yàlla sa aqlaay taala sa tëraayu bàmmeel ndax mës naa mooy madam ah sëñ bi sa question bi. <laughs> damay la xam nga boo xasee wax euh, sa digganteeg yàlla day xaw a doy waar quoi mm-hmm. day xaw a doy mais mm-hmm. ah, lu ñuy wax lu xëy na mm-hmm. lu ma bett la lu ma bett la uh-huh. waaw mais euh, du question de tamit danoo infidèle Euh, mais xëy na jàmm bi moo matul quoi. waaw mais wax ñu rek nu mu demee. Euh, am na benn bis. xëy na moom dafa demoon voyage. am benn xaritam boo xam ne ñëw na seet si ma si biir kër gi. waaw xaritam. Mhm. guddee na fa nag ma ne ko euh, ah tey moom soxna si comme nekku fi. te guddee nga te mënu ma laa yóbbu it. Mhm. xëy na mën nga fanaan. Mhm. bis boobu bi mu fi naanee nit ku nekk booy wax yàllaa tax ñuy wax mhm. def nañ fa loo xam ne wax dëgg yàlla. neexuñu ah. ci en plus ci kaw la sama xarit yow nga ne ma. non non yow xaaral non sëñ bi taxaw wax la xam naa ne seen émission ngeen di def mais tamit yow Mbisaan est-ce que yow nit nga. soxna non est-ce que nit nga laa la bëgg a laaj. non soxna dañuy laajte rek émission la. dañuy laajte rek émission la rek. non non même bu fekkee émission la en plus tamit mu nekk émission mi ngi jël ni loo xamante ne man musul toog wax ma ko ñëw ba si émission di ko fa waxee. ñëw ba si émission di ko fa waxee. waaw non non soxna si waaw eh, soxna jégalu eh li soxna si émission kese la. sama yoon nekk si émission. Oh, oh. non non soxna si eh. Oh, soxna si. voilà soxna eh, ba jooy lii nan la. non sincèrement nag sama gars yi situation bu metti la nag. waaw situation bu metti la. ñun góor ñi nag. you know bu dee yàlla dëgg rek la bëgg ñun bëgguñu di dégg jigéen ñi naan ñu góor ñi ñoo dàq mooy jigéen ñi. mais sincèrement soo xoolee ba ci biir. mun naa ne dafa xaw contradictoire tuuti. waaw man su mi sax yenn saa ma gën ma gëm ni jigéen ñi ñoo dàq mooy góor ñi li tax ma wax loolu. moo jigéen moo gën a mën a denc secret góor. maanaam ñi ci góor ñu bëri mën nañ nekk ak seen soxna di ko mooy mais lu mu yàgg yàgg yàgg def ay feeñ mais jigéen mën nga nekk ak moom depuis des années ngeen def dix ans de mariage wala quinze ans de mariage mun naa ne durée bi ngeen nekk yëpp yéen ñaar mu ngi lay moytu soo ko xam mais nag situation bi mu dafa daw yaram quoi sincèrement soo leen xoolee sax ci début vidéo bi ñun am seen ndaw si ni mu réagir rek ñu ko njëkkee poser question yéen ñëpp di ngeen xam ne sincèrement musul mooy waa ji quoi waaw je ne pense pas que musul na ko mooy. waaw mais nag c'est situation boo xamante ne daal sama gars yi dafa naqaree dafa naqaree positionné quoi parce que ci ñaari côté yëpp mun naa ni ñaar koy def. waaw jigéen ñi dañuy mooy góor ñi dañuy mooy mais jigéen ñi ñoo ko gën a mën parce que ñoom mën nañ ko nëbb pendant des années du feeñ. mais su fekkente ne góor la moom. ina am seen góor dafa xaw nooy bopp tuuti. waaw fekkente ne góor la no lu mu yàgg yàgg day gaaw a feeñ mais sincèrement daal sama gars yi li mu leen mën a wax mooy vie couple yu bëri yoo xamante ne ñu ngi koy dund mais mënuñu ko wax waaw ñu ci bëri ñi ngi mooy seen borom kër mais mënuñu ko tiim di ko wax. you seen what I'm doom yoo xamante ne sax léegi dem nañ ba jur ay doom ci biir néegu sëy yàlla xam na ni doom yu bëri yu ñu jur ci biir néegu sëy du ñoom ñooy seen papa bari na biir Sénégal. waaw yenn yi tamit nga gis mooru mooru bu tukki you know am seen dem bitim réew i fiil mi ba ay ginnaaw soxnaam soxnaam ëmb ci ginnaawam te lu ci bëri sooy xool sax ñi ko gën a jege ñoo koy def you know seen mën na doon nijaayam mën na doon cousin mën na doon propre frère am waaw mais daal li ma mën wax daal situation bi mooy situation la boo xam te ni jigéen ñi ñoo ko gën a mën a nëbb ko góor ñi mais ñaari côté yëpp koy def sincèrement quoi waaw ma bëggoon tamit ñu seetaan deuxième vidéo sama <laughs> jox sa numéro gel ñu woo ko ñu ndax sa tur lay wax wala du wax sa tur. ah man de yàlla daa dogal ne aw ma gel man doxaanu ma kenn te kenn doxaanu ma waaw mais yow sax. Ah. yow dama xool yow sa gel ba mu fidèle na si yow léegi da ma jox sa numéro gel ma xool ba am sa gel fidèle na si yow def loolu. mais mais jox ma jox dugalam fi sa numéro gel ma xool ba am sa gel fidèle na si si yow. sama gel jox ma ko mais liggéey la ñun def. jox ma ko ma xool ñoo ko a defee jox ma ko ak nu mu tudd ah kan nu mu tudd man waaw man laay la terrible laa tudd ah, ne laay rek man la wax waaw ok waaw salaamaaleykum waaw soxna si maa ngi lay waaw kooku de moom baal ma tur bi mais mu ne daa am benn waay bu ma tasandel fii nii léegi dama euh, taxaw expliqué ko waxtaan ak moom mu ne daa am benn gel man ko xo maa xoos ak na si yow wala fidèle si yow léegi dama bëgg xam ne yow waa ji nu mu nekk fi ñu nekk moom defe naa xam na moom maa ngi jéegalu si kii kii bi quoi déplacement xam nga rek euh, waaye tama tënd si gel nu mu tudd tawaay xam ma ne fore mënuma la fu ñuy nekk mais damaa bëgg a xam ne am n'est-ce pas am nga far. léegi sa far nan la tudd moom laa bëgg a xam. ah laaj ba laaj. Babs allo. noppi nag sa gémmiñ bu ngande bi alo allo oui. yow kan mooy sa far yow. nga kan mooy sa far man la laaj. ah bon. ma kan mooy sa far nga naan ma ah bon. <laughs> déggu ma. Babs la. ba ba Babs mooy safar. waaw yow ba doola nga. mosuma xala man mosuma laa nag. ay waay moo tax mu toog la. waay waaw yàlla defal na loolu gis nga waa ji mujj na daal. oh shit. waaw sincèrement sama gars yi mooy li ma leen wax léegi rek. c'est un phénomène boo xamante ne mi ngi bëgg bëri Sénégal. you know what I'm saying sincèrement ñun les sénégalais vraiment rare ngeen di gis. you know ay sénégalais yu nekk ci vie de couple mun naa ne ay vingt vingt cinq ci ginnaaw. you know what I'm benn partenaire bi di comme mooy quoi ak keneen. waaw ñun les sénégalais c'est rare lañ ko doon gis mais léegi dafa bëri léegi ci jeunesse bi. ñu ci bëri léegi ci booy jeunes yi. you know what I'm du ñu am rek benn far. you know ay cinq six far la dajale. waaw mais nag li ma ci mën a wax rek mooy sama gars yi téye leen seen xol yi quoi. dañuy dund benn monde boo xamante ne sama gaay yi. karal mbir yi daal man yéem na ma quoi mbir yi yéem na ma trop. yu fi mi ñun suñu jamonoy maam sax xëy na amoon na mu muy demee sax bëggante vrai amoon na quoi parce que des fois di nga gis nit koo xam te ne da nga koy bëgg rek te yàlla tax. mais léegi ñun sunu nouvelle génération bi lenn mooy problème bi mooy nit ñi du ñu bëgg léegi te yàlla tax. yéen ñëpp dégg ngeen ndaw si lu mu ko wax nee na ko bës bi rek laal toppee woon. li ma jëmoon wax daal sama gars yi mooy bu leen bëggante sincèrement quoi bu leen nobante bu leen bëggante jël leen seen xol yooyu ngeen téye ko bu leen bëggante bu leen nobante nit ki da koy bëgg jox ko sa xol daf koy détruire même sax bu fekkente ne sax mësul am intention bu détruire ko lu ci bëri mën na xew viwu viwu nit mën na changer yëfu yël mi mën na nekk benn situation boo xamante ne dootul mën a nekk ak yow te yow bu fekkente ne yow loolu mënoo ko comprendre yu film yi damay mujjee yàq sa xol rek dina am what ma bëgg leen wax ne leen sama gars yi téye leen seen xol yi léegi nit ñi bëgganteetuñu relation yëpp mun naa ne intérêt moo ko lal man chimie daal ku ma ci déggal ku ne non sincèrement sa xol di nga ko téye quoi sa xol moom di nga ko téye ba mu dëgër waaw léegi mun naa ne ba ci mariage yi am sax li gën a waral muy tas lii rek la da ngay gis ñaar nit yoo xam te duñ sax dund sax benn situation ñoom ñaar mësuñoo yàgg defuñu benn temps nga eh, gis xale bu jigéen bi léegi rek dugg ci mariage parce que tout simplement da nga ko xemme moom tamit mu yaakaar ne am na lu na ci waaw su nga nekkee nag ci biir vie de boobu noonu su fekkente ne li taxoon nga topp ko gisatoo ko ci moom waaw sincèrement pour nga tromper ko dafay yomb quoi. te ñi ci jigéen ñu bëri loolu la ñuy toppee góor ñi da ngay gis jigéen boo xam ne dafay topp gaane parce que tout simplement fa jantal su fekkente ne du loolu tamit mun naa am ni gaane waaw góor gi tamit même chose dafay topp ndaw si parce que daf ko xemme ñun ñëpp xam nañ sama gars yi ceebu jën sax boo ci dëkkee di ko lekk chaque jour non sincèrement moom bu yàggee da lay sàppi waaw lépp lu tax nga topp doomu aadama bi lu dul yàlla jour mën na ñëw sama gars yi mu sàppi la te bis bu la sàppee moom sincèrement vie de couple boobu noonu doodoo ci bëgg dara su Choumi TV daal dama génnoon rek sama gars yi pour partager yéen ñaari situation yi ne yaa y a trop d'infidélité au Sénégal képp ku ciy bëgg daal sama gars yi jëlal sa xol boobu nga xool foo koy dugal quoi mais bul mës a jël sa xol naan yaa ngi koy saraxe. li nii daal moo doon vidéo bi Choumi TV bëggoon aussi sama gars yi ngeen bindal ma seen suuf ngeen wax ma lan ngeen xalaat ci studio bi nii. Choumi mi ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen jox rendez-vous ci yeneen vidéo. nga ni kan mooy safar yow. nga ni. nga ni kan mooy safar man la laay. Babs la. ba Babs mooy safar. waaw yow baadoola nga. mosuma xoolal man mosuma laa nag. ay waay bës moo tax mu <laughs>